yaram benn organe bi ñuy wax pancréas moom mooy produire benn di xelli benn hormone boo xamante ne saay su suukar duggee ci yaram bi moom moo ko war a jël dugal ko ci cellules yi ko soxla suukar suñu yaram lépp ko soxla bu ñuy dox suñu muscles yi soxla na suukar bu ñuy xalaat suñu cerveau bi soxla na suukar ak feneen ak feneen dañuy soxla suukar looloo tax en général bu nit xiifee suukaram wàcc da ngay gis du mën a def dara am na ñoo xam dañuy dem sax ba daanu bi nag xale bi buy juddu pancréas boobu pour xel insuline bi moo manqué moo baaxul donc du am carrément insuline looloo tax ci bu ndaw la koy dalee jabet boobu ni ñu koy gën a xamee buy dal nit ki nit ku en général du nekk nit ku am yaram nit ku sew lay dal euh, dina dal nit ku sew en plus boo duggee ci famille bi day nekk famille boo xamante ne benn nit kooku rek dangay xool ba ci maamaati maam yi moom kese moo ci am jabet bi parce que du jabet du feebar boo xamante ne ci famille bi la dal mais lu ko dal lu mu judduwaale diabète bobu nak bari wul en général ci suñu société bi bi ñu euh téméré nit yu nekk juróomi kessa ñoy am diabète bobu donc diabète bobu bari wul té du alimentation moko joxé té soxla wu sax ñuko ci waxtané lu bari mais luñu gëna intéressé nak moy diabète type 2 moy diabète bi dal magni diabète bobu nan lay diké ci magni moy ba tay pancréas bobu di produire insuline bi yaangi jëm mak ñepp xamnañ ñukuy jëm mak sa cellule yu bari dañuy màgget comme machine la rek machine nak buy màgget limu daan produire bu ñëk ba da fay wañi soit mu gëna yéx wala limu limuy def mu gëna ndaw surtout nak nit ki su amul won alimentation moy lekkin bu baax donc boo sa lek bu baaxul mom machine bi suy fonctionner euh day jël rek mom suukar lu ñëw day produire rek pour euh fexe tasaare suukar ci légui nak soy lek lu bari bari ak ki dul kuy lek normalement man mi lek lu bari sama sama machine moy gëna gaaw sonu donc man maay war a gën a gaaw am jabet ka ki lekkul en plus machine bi aussi mën na baax mais am na ci yenn yoo xam ne te mandarga yoo xam ne su ko nit amee euh, insuline bi suñ ko produire pour mu liggéey dugal affaire euh, suukar bi ci yaram bi dafay manqué mooy mel ni lu ci mel ni graisse gu bari ci nit surtout graisse abdominale mooy biir bu ngand euh, loolu moom bokk na ci lii gën a foo fekk nit koo xamante ne biiram day xaw a rëy bu ñu deful ndànk dans les années à venir ci lu ndaw mën na ne am jabet jabet boobu nag moo ëpp ci ñun boo jëlee téeméer yi juróom-ñeent fukk juróom yi euh, jabet boobu lañ moo leen di dal dañuy dem ba nekk mag mu commencé leen dal te jabet boobu en général dafay bari ci famille foo fekk euh, ku ko am soo ko laajee ndax sa papa wala sa yaay amu ñoon jabet mu ne la waaw wala est-ce amoo ko bokk ndey ak bàyyi ko am jabet mu ne la ankay am na dafay dal ñu bari ci famille bi te en général comme ni ma ko waxee kee jabet bu ndaw lay doon fii nag ku jabet ki day am yaram surtout nag yaramu kaw yaram am yaram bu dee yaramu suuf dangereux wul noonu mais yaramu kaw moo gën a gaaw ci surtout jabet ak tension ak yépp mooy yaramu kaw nag biir ci la bokk. jabet boobu noonu la demee léegi bu tey bu ñuy waxtaan ñu wax ci màndargay jabet lan loo xamante ne nit ki su ko amee war na def attention xalaat ni est-ce que aw ma diabète màndarga diabète yooyu bi ci njëkk jiitu mooy tuur ndox bu bari en général ñi am jabet ñi dañuy tuur ndox lu bari. tuur ndox boobu parfois dina dem ba nit ki su ko doon natt dina weesu ñetti litre ci bis bi te tuur ndox boobu du bokk ak tuur ndox normal yi nga xam ne day xaw a jaune xaw am couleur tuur ndox boobu dafay mel ni ndox di ñëw lu bari nit ki dina dem ci bëccëg gi lu bari guddi gi tamit dina yeewu di dem tuur ndox parfois suukar si dina bari ci yaram bi ba ci tuur ba ci suukar si day wàcc ci tuur ndox bi am na ñoo xam ne dañuy ñëw ne la man de dama seetlu damaa ndox wàññeeku ñëwaat ci ci douche bi fekk fa ay sànqalañ kon ndekete tuur ndox bi dafa am suukar am na ñoo xamante ni sax dañuy jam di ñam tuur ndox bi gis ni dafa am suukar boobu fekk na suukar si bari na ci yaram bi ba indi tuur ba indi tuur ndox bu bari boobu fu tuur ndox baree nag mar tamit dafay bari dañuy nekk di tuur ndox fu ñu toll di naan fu ñu toll ñoo xamante ni dañu naan fu ñu toll sama gémmiñ gi dafay wow sama gémmiñ gi sama put bi dafay wow fu ma toll damay bëgg di naan parce que loolu ndox mi ci waroon dugg ci yaram bi duggul ci yaram bi donc day génn toujours ngay gën a continuer di naan bokk na ci aussi beneen signe mooy euh, lekk bu bari foo fekk euh, ku am jabet lekkam dafay bari parce que comme ni ma expliqué woon rek insuline bi fi waroon nekk pour dugal suukar bi ci yaram bi pour yaram yi sentir ne suur nañ cellules yi duñ ko sentir donc toujours da nga yaakaar ne da ngay xiif foo toll yaa ngi lekk di lekk di lekk rek alors que lekk bi dañoo dugg ci yaram bi suukar bi mu ngi des ci deret bi te lekk boobu li muy gën a ànd ak mooy doo am yaram da ngay am da ngay jeex tàkk bu diabète bi xasee ba dugg da ngay lekk da ngay jeex normalement nit buy lekk dafa war di am yaram mais nit buy lekk rek euh, yaramam jeex foofu war na xam ni euh, problème am na mu dem xooli euh, do hôpital xool yaramam yi am na yeneen feebar nag yu koy indi mais nit na dafa war di seetlu fu mu lekkee rek te du am yaram gañewul ay pois war na xam ne problème am na mu dem saytu lan moo nekk ci yaramam bu weesoo ñeenti màndarga yooyu nga xamante ne bu jabet bi xasee ba dugg la fiy nekk amna na ci mandarga yoo xamante nit suko amé warna war na moytu mandarga man tay sumako amé te mati amuko man lañ wara gëna bayil xel man ma wara gën di dem saytu sama yaram parce que diabète bi man lay gën yomb que mati moomu mandarga yooyu moy yan nit so amé ay papa wala yaay parent de premier degré moy manam sa papa wala sa yaay wala ko bokk ak ak bay ku am jabet wala sax mën nga jur doom mën nga dem ba ay 70 ans nga jur doom ba am 30 35 ans am jabet war nga xalaat nga moytu parce que diabète type 2 boobu day dalandoo famille yu bari nit bu amee loolu donc war na di xool yaramam au moins di dem annuellement di xool suukaram su dee normal la mu di koy répété di xool bokk na ci mandarga yooyu comme ni ma waxoon tout à l'heure euh, surpoids wala obésité surtout obésité kaw obésité android lañ koy waxee mooy kaw gu rëy biir bu ngand en général nit bu ko amee war di def attention di dem xooli yaramam lu baree bari parce que kooku jabet daf koy yomb bokk na ci yooyu noonu lu ñu woowee tension euh, tension ak jabet euh, ñun ci médecine dañ leen di woowee couple la kenn du dem bàyyi moroomam bariwul nga gis nit mu am jabet te amul tension waaye bariwul nit nga gis mu am tension te amul jabet donc ñom ñaar en général bari wul dal donc buy dem day and ak morom ba tax na nit ki su amee tension dafa wara gëna def attention di xool suukaram tey moytu suukar bokku na ci tamit nga dem hôpital ñu ne la sa cholestérol dafa yéeg nit ku ñu ne da nga am cholestérol tamit war nga mëna moytu di xol sa yaram moytu diabète bu baax déjà nga commencé sax régime yi may wax ni da ngay boko amé da ngay commencé régime bala diabète bi di la dal bokk na ci yoyu euh jigen bu wérul bu nga xamantene dafa dem ba ci biir wéradi bi ay 6 mois de grossesse jabet dal ko loolu la ñuy woowee diabète gestationnel dafa nekk diabète boo xamante ne en général ci sixième mois de grossesse bi lay dal su yàlla defee nga am jàmm nga accouché mu demaat mais jigéen bu loolu di faral di dal ndaw def attention te xam ni diabète dina ko yomb bokk na ci aussi jigéen bu jur doom bu am poids mooy maanaam poids bu ëpp cinq ba 4 kilos loolu jigéen buy faral di jur doom yi rëy na préparé wu te xam ni moom diabète moom lay gën a yomb te ko beneen moroomu jigéenam donc muy def régime di moytu bu baax a baax a baax suñu weesoo siin jabet yooyu pourquoi ñu gën di waxtaane jabet mooy jabet dafay indi ay boo xamante ne nag dañ koy projeté ay d'ici 10 ans lañ koy xaar ba 15 ans ci kaw ci suukar si normalul parce que boo amee jabet tamit faj sa suukar ba mu normal problème yooyu yëpp mën nga ko bañ a am lan mooy euh, complication aiguë yi mooy nga dëkk ak diabétique jabet dina xëy da ngay xëy rek parfois nga dëkk ak sa diabétique gis mu jékki-jékki rek nelaw parfois nelaw diabète bobu bari na ay façon mën na nek sucre bu yek torop ba indi coma waye mën na nek tamit sucre bu wàcc torop ba indi coma diabète euh, nak baxul sucre bu bari ci yaram baxul waye sucre bu wàcc mo gëna dangereux mo gëna a gaaw a reye que suukar bu yek sax nga nek sa diabétique ci bir kër mu diabète bi traitement yi dafa am ci bo xamantene day wàccee sucre man nga jël sa traitement kéro nga faté ndéki wala li nga ndéké xawul am ki suukar si wàcc lool ba nelawal la suukar bu wàcc nag foo dëkkeek diabétique même bu dul diabétique sax nit ki koo nekk ak ci ci àdduna bi nga jékki-jékki mu ne këlëb daanu bala ngaa def dara wutal sa benn beek suukar nga def ko ci suuf làmmiñam parce que hypoglycémie hyper jabet euh, bu suukar bu yéeg mën nañ ko yóbbu hôpital récupéré ko mais suukar bu wàcc en quelques secondes mën a ñàkk nit ki donc nit ki nelaw bu mu mënta nelaw Euh, li mëna japp moy fo mooy nit mu jékki-jékki ngeen nek di wax wala dara muy diabétique sax wala mu nek no diabétique parce que day dal ko am diabète day dal ko amul diabète fu mu jékki-jékkee daanu jël leen gaaw sucre def ci souf lamine bi parce que boudé benen beneen comment mën nañ ko récupérer mais boudé hypoglycémie mom dafa dangereux nekul lo xam ne mën nañ ko récupérer té en quelques secondes quelques minutes mën na rey nit ki ñu bàyyi ci xel bu baaxa baaxa baax donc bo dëkkee ak sa diabétique nga xey gis mu xawa jannaxé xawa jaxaso jëlal yanu yobbu hôpital même bu dee mi ngi jël traitement am yëpp diabétique yi tamit bu ngeen togué di jël sen traitement ba lépp baax parfois nga xey tay tu ndox bi gëna yok nga xey di xawa mir wala nga xey sa appétit wàññeeku yoy yépp ay signe d'alerte la signe yo xamante soko amé ak nu mënti do même bu dee démb nga jógee hôpital délu wat hôpital ñu xol la dog la mëna a bàyyi bu weesoo complication yoy di mëna dal diabète euh, diabétique bi ci à tout moment am na ci complication yoo xamante ni nit ki su amee diabète faju ko normalement complications yi mën na ñëw dans les années à venir diabète nag ni muy jàpp ci yaram bari na li ci gën a bari nag euh, bët ci la bokk parce que bi ñu defee ay gëstu xool euh, euh, ñàkk gis bu bari gumba bu bari lu ko indi diabète moo nekk deuxième cause moom mooy moom moo jël deuxième place parce que diabète dafay jàpp ay bët surtout bu équilibré wul nit mën nga am sa diabète Susu suukar normal so demé docteur bi du ko wax ta sentiro dara nga né ah docteur bi fay wax ne nga bayyi fekk ni boobu ya nga yàq sa bop lo ne équilibré woon feebar bobu mën nga ko bañé ki su wéso boobu jabet dina japp ay roño roño nak mom rolam ci nit mënu nyak. ñak déjà nit bu ko ñaké ba dem instant rénal terminal moy comme ni ñu wax mu jé obligé di dem ay dialyse dialyse yi gis ngeen légui ni mu jafé ci aduna bi euh, Sénégal da ngay gis ku dem bo amul xaaliss dana metti te même boo amee xaalis euh, rang bi dafay métti pour nga def dialyse te jabet boobu tamit bokk na ci cause yu gën a entraîné euh, insuffisance rénale te loolu yépp ci suukar bu ñàkk a équilibré mais soo amee sa jabet faju normalement topp lu ñu la wax diabète day jàpp xol te buy jàpp xol bi doo ko yëg da ngay jékki-jékki rek nga daanu diabète tamit bokk na dina jàpp aussi euh, cerveau bi mooy li ki demee ni AVC xëy rek benn partie bi bañ AVC yi ñi koy gën a def diabète am na ci wàll bu baree baree bari dina jàpp tamit euh, siditu tànk yi parce que dafay ñëw am lu mu kii fatt sidit bi su sidit bi fattee deret bi su jàllatul tànk bi dootul dund tànk boobu su amee góom amul deret buy jàll pour mën a ko cicatriser mooy indi góomi yàgg yooyu parfois da ngay gis ku yàgg ak góom ba dañuy mujj obligé di di dagg tànk bi euh, bi ñu defee gëstu ci àdduna bi dagg tànk yi li accident di causé li jabet di causé moo ëpp fuuf li accident di causé kon jabet day indi problème tànk lu bari bokku na ci tamit neer yi jabet fay japp neer yi moy nga da ngay jek jek di santi sama ndig bi day metti wàcc ba ci sama tanki surtout nak euh, neeru tanki ba nga xamanteni nit ki du yek tanki da ngay gis diabétique bu dox parfois dañuy ñëw ba hôpital dañ sax yor dal soxna ci an sa mu ne ah solo na dal bamay ñak dal bi sax xamul fan la ko ñaké té li ci gëna a dangereux ñak yek ci tànk yooyu moy li nga dem ba euh, di nga gañu te ko yek mën nga lak te ko yek ñam parfois dañuy jaaru sax ñëw lak te duñ ko sax yek tok ay ñaari fan lak ba ne ba infecté bu ne ñu dëkk xool loolu ñu am xelu xool duñ yek ni sax lak nañ ñak yek tank yooyu mom mo ci dangereux. su complication yooyu yep tamit wesso bokk na ci tamit infection fo fekk ku am diabète infection mom lay gëna dal que ki amul diabète yi ci mel ni ay tuberculose ay yeneen infection yu grave ci teere diabétique lay gën a dal moo tax en infection yooyu soo ko indee hôpital bala ñoo def dara dañuy xool ndax yow sa suukar normal na ndax normalement am na ñoo xam ne ñu normal waruñu am infection yooyu suñ jógee ci complication diabète yooyu dañuy waxtaan ci traitement bi traitement bi nag euh, bu dee traitement pour faj diabète bi moom ku am jabet da ngay dem hôpital rek faj ba moom mu nga fa mën na nekk ay comprimé mën na nekk ay piqûre régime bi la bok ak yépp loolu bu eggee sa médecin dina ko waxtaan ak yow mais lu ñu war a gën a intéressé fii mooy fagaru bi parce que fagaru moo gën faju nan la ñuy fagaroo ci jabet nit nan la war a defee attention ci jabet fagaru bu njëkk euh, régime alimentaire ci la bokk bu ñu nee régime nag euh, ñun suñu région yi problème bi mooy suñu lekk yëpp presque dañu am suukar dañu am ñoom ñëpp ay index glycémique xaw na tanante rek mais ceeb bi am na suukar mburu bi am na suukar dugub bi am na suukar lépp presque lu ñuy lekk pat yi lanteeg yépp dañoo tanante rek am na ci ñoo xamante ne ñooy gën a yéeg a suukar kañ yi loolu moo tax su jabet sax gën a bari suñu région yi moytu lekk boobu nag mooy di nga moytu lu niin lu niin nag suñ diwlin bi des ci kii bi ci cin li loolu yépp suñu xeetu lekk yooyu yépp euh, dafa bari euh, yu niin nit ki tamit dafa war a moytu lu saf xorom lu saf xorom ñun euh, bu ñu saytoo li ñu digle ci xorom li nit ki war a lekk ci journée bi ñun ba ñu ci nit ki ci suba gi ba ngoon li war a lekk ci xorom ñun ba ñu seetoo suñu lekk ca ndekki ba rek ñun atteindre nañ xorom boobu donc ñun ba ba ñuy ndekki ñun normalement bu dee dañ ñëw wax ñu topp régime xorom bu ñu ndekkee lañ war a arrêté xorom ba suba waat ñun suñu lekk yépp xorom la ndekki bi añ bi reer bi yépp xorom la ñuy ma leen di ñaax ngeen moytu xorom yi bu baax moytu bouillon yi moytu aromas yi ngeen di dolli ci kii yi même sa tamit bu ngeen di togg dëgg la ñu dañoo tàmmul saf xorom su xorom ñu ne dafa lewet mais ñuy wàññi bu baax xorom bi parce que xorom bi tamit euh, bokk na ci liy indi rigidité vaisseau yi bokk na ci liy gën a favoriser diabète euh, lu saf suukar tamit ñëpp xam nañ ko ñun fii dañuy ndékki buñu paree dinañ naan ataaya suñu añee dinañ naan jus nañ lekk ci fruit fruit am na ci yoo xam dafa saf xorom yooyu yëpp tamit dafa am suukar donc di moytu suukar bu baax baax a baax booy ndékki nga moytu suukar bi bu baax di def tuuti bu la boo mënee def benn bekk nga yam fa

suñu defee suñu palaatu ceeb day am légume am kii bu ñu légumes yi suñu ko partagé ku nekk benn dagg carotte lay am ku nekk benn dagg nawe li ci des yëpp ceeb la ñuy lekk te loolu moo gën a dangereux nit ki su toggee ci añukaay bi na gën a lekk légume wàññi ceeb ñuy gën a privilégié crudités yi ak salaat yi salaat ak crudité mooy maanaam ñoom concombre ñoom kaani salaat dëgg la tamit dafa métti parce que fii di nga dem sax ba benn moment boo xam ne dootoo gis sax kaani salaat ci marché bi dootoo gis concombre ci marché bi fii ñun fi ñu dëkkee euh, Sénégal suñu climat moo xaw a doy waa ci loolu moo tax mu xaw a jafe léegi nag régime boobu ba ñu xamee ni yombul yombul dëgg la mais ñu mën ci góor góor bu baax wàññi suukar bu baax ñu tamit rabattre maanaam dellu tamit ci li ñuy wax activité physique mooy sport sport bi nag euh, ku nekk yaay xam ni nga ko sentir rek nga defee ko ko bu dee football moo la gënal mën nga def football bu dee natation mooy sangu ci piscine moo la gënal loolu tamit sport la nga def ko bu dee daw la gënal nga def ko bu dee marche tamit moo la gënal def ko ñun lu ñu ciy wër mooy nga ñàq au moins 30 minutes par jour moo ñu gënal 30 minutes par jour nga di ko ñàq chaque jour ba ba 7 jours jeex bu nga ñàkk nga jot ñàkk nga jot ba mën a def 30 minutes par jour nga def au moins 4 jours dans la semaine dans la semaine wala 3 jour au minimum mais ñun moom wax dëgg yàlla 7 jour yi moo ñu gënal sa bu bokk na ci tamit euh, nit ñi di éviter li ñi wax euh, grignotage moy lek ci digënté lek yi parce que comme ni ma expliqué woon la machine la machine bi day produire mom say su gisé suuka ci yaram bi mu produire insuline yow nga ndéki nga añ nga reer ñetti yoon dina ko tak ci bis bi nga lek ci digënté mu takkat takkat koku moy gëna gaaw son ko machine bi nga xamantene ne benn ñetti yoon rek lay tak ki tak ci digënté lek yi dina am 5 ba 6 tak moom mooy gën gaaw sonn machine boobu mooy gën a gaaw a yàqu donc mooy indi diabète donc nañ moytu bu baax a baax a baax euh, grignotage yi euh, <laughs> te tamit nit ki su amee yaram ñu koy wax poids poids bu bari tamit day indi diabète nit ki soo xasee ba am poids na nga def en plus régime diabète boobu da ngay def régime pour wàññi poids régime pour wàññi poids nag bokk na ci comme sport bi di lek yu oyof éviter yu diis yi ak yu riche en protéines di daw lu bari fexe ba gaaw wàññi sa poids. Euh, tamit bokk na ci li nga xamante ne li gën a aggravé du indi jabet mais day gën a aggravé jabet te fu ñu toogee di waxtaanee jabet dinañ ko wax muy tabagisme moom bu ñu defee saytu ci ñu ci ñu ci ñuy tux la jabet gën a yokk te même bu bu la dalee ci ngay tux yow soo continuer di tux traitement bi du du efficace day am résistance. kii tux lañ gën a naqadee faj ka ki tuxul pour jabet donc en général suñu gisee nit mu mu am ay facteur de risque wala mu am diabète ce qu'on fait mooy waxtaan ak moom ba mu mu arrêté ci nu mu gën a gaawee euh, cigarette boobu muy tux bokk na ci aussi euh, xam naa ne sax intéressé wuñu mooy lu ci mel ni ne mooy sàngara bi ñu defee tamit ay gëstu aussi xam gis nañu sàngara bi tamit euh, facteur de risque bu baaxal ci diabète ba tax na en général ñun moom intéressé wuñu tubaab bi lay gën a intéressé mais ñu dañ ko ci boole rek ci waxtaan bi rek Euh, tey loolu laa indi woon euh, pour waxtaanee ko ci affaire jabet ku ci am tamit ay question euh, maa ngi maa ngi lay déglu mën naa ci répondre maa ngi leen di jaajëf bu baax ci déglu bi ak attention bi jërëjëf. ñu wax tuuti ci jabet ak koor ndax mën na ànd. ci kaw dafa am chiffre euh, luñ ko teg mooy nañ xool ndax sa jabet toll ndax du diabétique yépp ñoo mën a woor ku sa suukar normalul parce que nit ñi fii dañu yaakaar ni woor day wàccee suukar woor su la fekkee sa jabet normalul da gën a aggraver sa suukar am na ñu bëri koor koor la leen seen jabet di daaneel donc diabétique bu nekk wala moo bu weeru ko di bëgg a jege si na dem jege médecin mu xool yaramam xool ndax kii war na mën a woor wala mënul woor te koor googu am na complication yoo xam ne comme yi ma fi doon wax am na ci yoo xam ne day aaye koor am na ci traitement yoo xamante ne ci diabète bi dafay aaye koor am na ci tamit suukar bi foo xam ne su fa eggee dafay aaye koor donc du diabétique yëpp ñoo mën a woor loolu nit ki boo amee diabète ba ñu war la suivre da ngay dem ci sa médecin bu koor di bëgg a mu xool la autorisé la ndax di nga mën a woor wala doo mën a woor maa ngi dama jëloon aussi parole pour waxaale ci suñu association bi ngir santé ñi ma toog ak nii ki sama ndeyjoor Mati sama càmmoñ Cheikh Tidiane Koundoul euh, dañoo am association ñëpp war nañ ko xam bu ñuy wax ngi santé maanaam agent de santé yi nekk doomu ngi ñi ngi prépare sax suñu trois jours di ko tàmbalee semaine bii di ñëw incha allah di dem jeudi di retourné defoon nañ ko depuis ñaari at donc bi may ñetteelu at bi demoon nañ jeudi di ko di retourné si incha allah dimanche ñu leen koy yégalaale incha allah ñu ngi koy defee ji ngi incha allah di leen ci sàkku ñaan.

boisson light amul boisson light bu ngeen bëggee seetlu sax mën nga ko naan léegi nga xool sa suukar bu subaa nga naan beneen coca bu bokkut ak light nga xool sa suukar même chose ngay am ñoom ñëpp dañuy yéegal jabet diabétique gu ci bëgg a naan jus defaral sa jus bopp nga jël sa suukar jabet nga suukar loolu may nañ la ko nga naan ci bu bëgg naan jus noonu fruit bi aussi am na ci fruit yoo xamante ne duñ yokk suukar bu ci mel ne ni pomme verte bi bu ci mel ne ni pois ñooñu seen index glycémique index glycémique aliment mooy qualité bi aliment bi am pour yokk suukar lu ci mel ni ni mango nag mango dafa yokk suukar diabétique li ñu ko may mooy mango bi bu dee mango bu mag la benn leex bi mooy xaaj bi ci kaw dañ ko may benn par jour su dee mango bu ndaw mën na ko lekk par exemple comme bu dee xaal xaal dafa rëy xaal bi dañuy wax en général nga bariwul suukar may nañ diabétique bi mu lekk ci yu sew yooyu mooy raisin bu sew bi ay diis yooyu ba ba ci kii bi mais comme mango comme papaya comme xaal comme melon yooyu yëpp da ko war tàndarma aussi ñi ngi naan bu indi diabète tàndarma day yéegal diabète diabétique bu ñu la may nga woor sax benn tàndarma lañ la may ci bis bi tàndarma ba ñu ko saytoo mooy juróom-ñetti beek suukar bu ñu saytoo tàndarma li mu am suukar mooy juróom-ñetti beek

quand ni sucre bi bu yéegee ñu bañ a doon maladie la mais su ko see ko def stabiliser mu normal que wàllu jigéen ñi comme wàllu ji góor ñi mais ci góor ñi lay gën a feeñ te dafay indi toujours des day indi stress bu metti jàq foyer yu baree bari kër yu bari yàqu nañu ndax diabète bi euh, bon foofu laa amoon lu may wax man j'ai fait presque plus de 24 ans de diabète parce que j'ai eu deux couches avec j'avais un diabète gestationnel en 93 et 94

ஐயோ இதை கோல் பிரமிச்சு வரக்கூடாது